wooxoo gars yi championnat Espagne mi ngi commencé jël ay ampleur gars yi est-ce que championnat Espagne fi mu toll nii nag commencé wu la doublé lii di euh, champion bële di champion Angleterre donte Angleterre mooy meilleur champion du monde mais Espagne fi mu toll nii ci wàllu football au niveau mi ngi commencé jël beneen doxalin ga yi ànd ngeen ceeg man laal leen zam yi àndu leen ceeg man tam nee leen Aladji Malick Espagne a ngi góorgóorlu mais nag ba tey Angleterre mooy wéy di raw mais jéego yaa ngi am solo Real Madrid tey lay dajeek Deportivo Alaves goney merengue yi danañ soxla victoire bu mucc ayib ci juróom-ñaareelu wërngël bi maanaam septième journée fële nga xam ne nag moo nekk gars yi bu ma juumul Santiago Bernabéu fa la match bay amee su ma juumee ngeen jubbanti ma loolu du dara vingt et une heure pile heure lile di Espagne euh, dix neuf heures pile pile euh, fii ci Canal Plus Sport 3 Bein Sport tamit mën ngeen ko am euh, ci Bein Sport 1 yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci réseau câbleur yi ndax match bi fi ngeen ko war a amee dama leen koy jox en temps réel. ma nga noonee tamit euh, ki nga xam ne mooy Rafinha gars yi nag démonstration force bi nga xam ne mu ngi koy commencé euh, def li tax ma ni championnat bi mi ngi commencé am volume gars yi Rafinha euh, daaw football na lu toll ci ñaar fukki match ak juróom-ñett dugal ci lu toll ci juróom benn bit daal di ciy am ay passes décisives lu toll ci juróom-ñeenti passes décisives séngam gars yi saison bi fii mu tolleegul eh, juróom-benni match séngam la football am na ci lu toll eh, ci eh, juróomi bit am ci ñetti passes décisives loole nag ma jàpp ni am ceebu la maanaam commencement dong la ci Rafinha yal na yàlla lafal ko cat bu ko defee mu bañ a blessé ndax mu gën a mën a wane boppam ndax wane boppam moo tax ñun ñii di commenter match yi ak di ko seetaan bu boobaa dañuy am lu ñu nittali ndax dañuy gis information yu wér mi ngi doxal bu baax a baax loole tamit am solo bu baax a baax ci li nga xam ne saison bii mu commencé euh, duggul saison bi demagul fenn nee naa leen Barcelone tamit ñi ngi xaar matsam boo amu jombul suba lay doon bu ko defee dinañ ci ñëw tamit ci xët yu yaatoo yaatu diggante équipe bii di Barcelone ak tef bi jinne ji di équipe bi la di Barcelone moom Lamine Yamal kon gaa ñi ña ngi koy xaar bu baax a baax ci yeneen match waaye dañu gis ni nag mën nañ ko comparer ak ki nga xam ne daanaka moo nekk kii di Harry Kane di football fële ca Bayern Munich comparaison bi nag amul fi tànk waaye bu ñu xoolee ñeenti match yi nga xam ne Bayern na ci Europe yaakaar naa ni dàbbar ñi na ko ñeenti match yëpp carton plein la def ñeenti victoire darngu na ko Barcelone juróom benn match juróom benn victoire loolee bariwul xam naa ni bu ngeen doon rando di vérifier maanaam histoire Barcelone ak Real Madrid pour ñu football six euh, match six victoire loolee yaakaar naa ne xanaa ci jamono jàgg la waaye jamono ji euh, gisuma ni loolee lu muy bari di am la fekk booba Mohamed Salah ak équipe bu ñu moytuwul dinañ leen maanaam ak ci li nga xam ne mooy compétition bii di coupe du monde maanaam bi am ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak juróom-benn ñu ca bokk lu waral loolee dinañ ci dikk ci xët yu yaatu gën a gëstu ndax nee naa leen information bu ñu joxee ci Aladji Malick TV dañ koy topp di ko dàngul ba am ci lu nu leer moo tax yaatal gi leen yi gën di ñëw comme jot nañ ci information bi nañ dem wëri ko ba xam lu waral loolu ak naka la ba lépp confirmé wu Sadio Mané confirmé na bopp boppam confirmé na boppam démb ci match bi nga xam ne doon na ko football ñancoo international indiwu ma ko dara lu kontaan ci vraiment yëkkati samay information yu wér te wóor moom ñaancoo international ñaanal ko jàmm démb nag gis ngeen ñëw nañ ci Aladji Malick TV yaato yaatu rajaxe gi rajaxe Arabie Saoudite daal amaat confiance ci boppam gaa amaat ci moom confiance ndax wóolu sa bopp day tax ñu wóolu la kóolute googee yàlla na jëm kanam ci waa Arabie Saoudite moom la ñu yaakaar ci wàllu a ginnaaw yàlla mi ñëpp di ñaan fekk na booba Jaraaf de Dakar humilié na équipe bu bi nga xam ni yaakaar naa ni yàgg bi ndax dañ ko suspendre Souleymane Cissé attaquant vedette bu FC euh, Jaraaf bokkul woon ci match boobee xam naa bu ca bokkoon euh, fii ci stade Lat Dior bu boobaa yaakaar naa ni 10-0 la gars yi jëm ak équipe Côte d'Ivoire boobee Jaraaf na mi doxee neex na ñëpp arrangé na gars yi nañu leen ñaanal Malick Daaf mi bëgg tamit moom ñëpp ñaanal ko mu nekk premier entraîneur euh, bu senegal bu mus a jël lii di compétition bu nuy tekki dinduk Afrique loolee dana gën am solo gars yi yeneen information ci kanam ci xibaar yu digg bëccëg gi jërë ngeen jëf